ndoxum siti nag nekk baat boo xam ne baatab cosaan bi mooy toppam sët ya ndox euh, jàngoro la joo xam ne mooy ndey jàngoro yi bëri na lu nit ñi di gis seen yaram li ñuy wax ndoxum siti moo leen ko teg mu nekk jàngoro joo xam ne fu nekk la ko nit mën a jëlee waaye nag daanaka mën nañu wax ne doo ndoxu jàngoro jooju ku ko amul rek dañuy wax ne ngaana ngay nekk bu moo tax ji euh, jàngoro ji euh, nit ñi dinañ ko am ñii dana nëbbu ci ñoom ñii dana feeñ ci ñoom da nga gis koo xam ne yaramam bu sangoo day xasanu xasanu bu méttee méttee métti nga xam ne bu naaj bu tàngee am na ñoo xam ne bu ñu ñaqee rek su naaj yu tàngee rek nga gis ñu commencé xasanu am na ñoo xam ne bu seddaay bi seddee lool gis ñu commencé xasanu am na ñoo xam ne bu ñu sangoo njàmpe dañuy xasanu am na ñoo xam ne da ngay gis seen bopp yi da am karaas wala nga gis ñu am ay xam wala nga gis ñu am ay picc ci seen yaram am na ñuy am picc kanam picc kanam yoo xam ne picc yu rëy rëy rëy lay nekk ñooñu picc yooyu ngay gis loolu wàll loolu yépp ci xeetu ndoxum siti la bokk ak ñi nga xam ne seen diggante baaraami tànk yi day am lu weex lu weex loolu ngay gis ci diggante baaraami tànk yi ñu koy wax pied d'athlète ci tubaab yi nasaraan si di nga xam ne ñàkk xam-xam ak ñàkk xam am xam moo waral ñu tuddee ko loolu waaye jàngoro jooju jàngoro yu fajum cosaan la moo ko mën a faj mooy li ñuy wax ndoxum siti mooy toppam siti jàngoro jooju nag nga xam ne comme ci dal day gis ay wey du am na ñoo xam ne seen ay karaw day ruus di dagg am ñoo xam ne seen bët yi dañuy xonq cor am na ñoo xam ne seen euh, diggante gémmiñ day am lu ñuy wax euh, gémmiñu picc nga xam ne bu ñuy wax seen gémmiñ yi diggante day am purit wala muy am yu weex loolu loolu yëpp ci xeeti ndoxum siti yi la bokk am na xam ne seen wàllu yaram da ngay gis euh, yaram yi day am ay partie bii ñuul fii xees loolu yëpp da koy gis nit ki ne loolu yëpp jàngoro yi ndoxum siti moo ko waral am na ñoo xam ne nag seen ndoxum siti mi da leen di sonal sonal sonal seen karaw yi di dagg seen karaw yi di ruus loolu yëpp ci xeetum ndoxum siti la bokk moo tax it jàngoro jooju yàlla may nañu ci tawfiix su ne li ngay gis ni am na ci xeeti jàngoro yu bëri yoo xam ne nit nañ mu leen dal euh, tubaab bi mënu ci amu ci amu ci xam-xam mënu ko faj loolu yépp ci xeeti ndoxum siti yi la bokk moo tax tey fi mu ne nii nga gis euh, doomu aadama yi am na ñu bëri ñu ne ci coono ci wàllu wér wéré di bañ demee hôpital duñ buñ xoolee duñ gis dara te ñàkk gis dara googu yépp nga gis ndoxum siti moo ko indi am ñu am tension tension bu métti bu leen di sonal mooy hypertension lañ koy wax ma hypertension googu euh, bu fekkee dal na nit ki ndoxum siti bu muy yéeg bu bari dana ko ko waral am na ñoo xam ne seen bopp dañuy riir seen nopp yi di riir ndoxum moo leen ko teg ndoxum siti mu yéeg bi moom moo leen ko teg am ñoo xam ne seen bët yi dafay dem ba lëndëm gis-gis bi dootu demeeti noonu ndoxum siti bi moo leen ko teg am na ñoo xam ne seen wàllu jabet jabetuñu seen suukar ak seen ndoxum siti mooy booloo yéeg bu ko defee nga gis ñoom ñu am ja ñu am jabet seen suukar di yéeg nga gis ñuy jeex wala ñu am yenn jafe-jafe difficulté yi yooyu yëpp dafa jaxasoo wàllu ndoxul siti koo xam ne am nga jabet man soo dikkee bu ma traité incha allah yàlla la may bu bi da ngay wér clé su dee type 1 bi jafe boo ci mos a am moo xam jeexaay la wala néew kàttan la wala ji euh, euh, saw mu bëri wala ñàkk nelaw yooyu yëpp incha allah garab dana ko faj ndax am nañ ci xeeti garab yu ne waaye wàllum ndoxum siti moomu ma lay wax nga xam ne ñu bëri néew nañ kàttan ci sëy ñu bëri ñu ngi am problème jafe-jafe ci wàllu amam doom am na jigéen ñu bari ñoo xam ne tey fi nit ni am am nañ jafe-jafe ci wàllu amam doom am na ñoo xam ne seen wàllu règle yi dafa am kii mooy loolu ñu règle nga xam ne euh, mbaax la mbaax bu dee ci wolof dañ koy wax mbaax nga xam ne weer wu nekk dañ koy gis ci seen bopp ñu bëri tey am nañ ay jafe loolu moom moo leen indi muy ndoxum siti moomu am na ñoo xam ne dañoo am problème mu euh, li nga xam ne mooy bu ñuy gis mbaax muy métti métti bu métti bu tara tara tara tara loolu wàllu ndoxum siti bokk na ci li nga xam ne moom moo koy teg nit ki am na ñoo xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu ay yax euh, tubaab bi di ko wax arthrose wala ñu koy wax euh, euh, rhumatisme mooy feebaru sedd loolu yëpp ndoxu siti moo ko teg nit ki yàlla dogal na am nañ ci saafara su baax a baax a baax a baax garab yu baax a baax a baax boo xam ne soo ko naanee yax yi métti ci yow sa digg ginnaaw bi wala sa óom yi wala sa baat bi wala sa tànke wala sa loxo yi yooyu yëpp boo naanee garab yi daf koy dindi ba mu set wecc képp koo xam ne yàlla dogal na ci yow nga am jafe yooyu ma fi lim yëpp yàlla dogal na am nañ saafara si tawat yooyu yëpp yàlla dogal na am nañ saafara si ku fi ñëw rek incha allah wala nga ko ak ñun danañ la dimbale ba nga mën a taw sa tawat jooju mën a teqalikoo ak yow garab yi na garab la yoo xam ne garab yu baax la ndax garab yi cosaan la am na ci yenn tawat garab yi cosaan rek moo ko mën a faj koo la mën a yebal ci feneen fu dul garab yi cosaan daf lay sonal